di ñaan sunu borom tabaaraku taala mu dolli ñu tawfiq jéggalu yeex gi nga xamanteni dars bi yeex na ko tambali waaye dañoo nekkoon rek ci ay yëf su ko defee del siwaat nañ ci seen dars bi nga xamanteni ni moom mooy maqamatul xariiri ñu toll ci euh, li nga xamanteni moom mooy euh, leçon ñeenteel bi su ko defee keroog bi ñu jotaay bi ñi nga àggoon fii fi nga xamanteni ni moom la mu alif bi doon wax naanu fa asaara man isaaratuhu hukmun wa taatuhu gunmun mu ne fa asaara te junju man ka nga xam ne isaaratuhu ak junjam hukmun ab àtte la wa taatuhu te ak toppam gunmun ak màng la <coughs> ilaa an unsi a jëm si jëm ci masos maqaamaatin ay maqaama atlu yoo xamante ne danaa topp fiiha ci ñoom tilwal badii yoonu badiu zaman wa in lam yudrik ak doonte mënta jot azzaalixu aji soox ja shahwa daliixi eh, xelu aji am kattan jësooxut nee na dafa am koo xamante ni dafa daal di junju eh, eh, te kooku nit la ko kilifa la rek koo xamante ni maanaam ab junjam àtte la waaye lépp loo xam ne joxoñ nañ ko itam dañ ko war a topp maanaam daal ak kilifa la goo xamante ni mel na ne ku fa am daraja la ñuy ne kooku Eh, dafa bokkon ci bono bono bono dawlatul dawla al abbasiya ci la bokkon mom kilifa gog ni ngay wax nan amir ba la ñi nan gone yi nga xamanteni ne ñoo nekk ca eh, palais ba rek la way dal neena mom mo ju ñu bëgg ma sos li nga xamanteni moy ben eh, ay maqama yo xamanteni talif wama cey talif dama koy leg yoon wi nga xamanteni mom la yoonu badi usman mom la badi usman dan talife li nga Eh, kooku nag daal di wax ne donte nak sax manam ki nga da fay sox man ta jot xelu mukk ki nga xamanteni eh, day day eh, dafa am dafa am kàttan te sooxut waaw donte daal yow al hariri mi mënoo jot mënoo jot ba de osamaan ci walu xam-xamu adab du tey itam nak nga jëm ko roy rek nga jëm ko roy mhm. hariri neena fa zakartuhu ma ak mom bima ci la nga xamne xila waxe nako fi man ci ko xamne boole na wala taalif na bay na kalimatay ni diggante ñaari baat wa nazama tamu way baytan aw bayit aw bayte ni wala ñaari bayit nee na bi mu waxee loolu ma daal koy tuddal bayit yi nga xamante ni borom xam-xam adab yi dañ koy wax mooy la nga xamante ni moom la ñuy wax ci yenn saraay boo gisee dañuy wax ne man allafa kitaaban aw qaala siran fa innama yaaridu ala nnaasi aqlahu fa in asaaba faqad istuhdif wa in axtaa faqad istuqsif dañuy wax ne képp koo xam ne maanaam taalif na benn téere wala mu wax wenn way dafa mel ne ku jël xelam di ko gaaral nit ñi euh, naan leen xool leen fii la sama xel toll su fekkee ne la mu wax jub na day su boobaa ah nit ñi dañuy daal di tàmbali di jonganteeg moom di xool ñoog moom kan moo da kan moo dàqa taalif wala kan moo dàq way amaa su fekkee ne li mu wax dafa dëng nag dafa juum ca lañ koy sànnee kenn dootu ko tuddati mune batay tamit nit ñi dañuy faral di wax ne laa yazaalul maru fi fosxatin min amrihi ma lam yaqul shi'ran aw yu kitaban manam dal nit ki mi ngi ci jàmm li feek waxul aw way wala mutalif ab tere bo xasse wax wenn way wala mutalif ab tere ah da fay ne dootu nekkati ci jàmm ndax bu dëngoo dëngee moom dana doy ci war war ci mom lool mune kon li lépp dal wax naa ko ngir bëgg mu bàyyi ma ma bañ a nekk naan damay jéem a roy ba di zamaan ci wàllu taalif li nga xamante ni moom mooy ay ay maqaama mu ne wastaqaltu ma sàkkoo xàcculu mooy ma sàkkoo bàyyi rek min hasal maqaami ci bile maqaama alla si ba nga xam ne yaxaaru dana gërëm dana gërëm fii ci moom mu xel ma wa yafrusu tayra ci alwahmu njumte la maa ngi sàkkoo ba taay sàkku naa ci moom ba taay yi naan ko léegi damaa bëgg rek nga bàyyi ma ma ma bañ fee nekk di jéem a taalif maqaama ndax maqaamakat ku koy talif sam xel da fay gëlëm ba ngay tabbi ci lo xamanteni waro ci tabbi leg leg leg léeg itam manam nga reccile tabbi ci njumte lo xamanteni euh doyna war mune itam wayus baru te defi natto ci mom ghawru laqli li nga xamanteni mom moy khotul xóotu xóotaayu xel ma wata tabayyanu te ciy bére mar'i khaymak cam fil fadli ci ngëneel la mu ne maqaama ko mu ne ko ma maqaama kat képp koo xamante ni maanaam yaa ngi koy taalif ah, danañ ci nattuwaale sam xel ndax li ñu faral di wax rek ku wax feeñ waaw ah, nit ki moom su fekkee nee na ceel waxut taalifut wayit ah nit ñi dañuy daal di xam ne ah, duñ mën a xam mooy kan daal waaye saa boo xasee ba ba wax moo xam dafa taalif wala mu wax rek danañ daal di xam kii fan la am xelam toll kon mu ne ko maqaama kat ku koy taalif danañ danañ danañ danañ danañ ca la ñuy nattoo am xelam ndax buy wax rek ñu xam fan la am xelam toll te tamit képp koo xam ne taalif nga ay maqaama dangay doon koo xam ne euh, sa xiima maanaam euh, sa valeur sa valeur ci boppam euh, ci wàllu ngëneel nit ñi dañ koy daal di xam. nee na way taruta dee fi loruloo saaxibuhu boromam ila an yakuna jëm ci mu nekk ka xaati bi laylin nekk aje taxan guddi aw jaali bi rajulin wala aji rëgët way dox ak seen i tànk waxaylin ak i fas mu ne kuy taalif maqaama day dafa mel ne loolu daf lay loruloo daf lay obligé ba nga mujj mel ne koo xamante kuy taxan rek nga euh, da nga boole matt gu baax ak gu bon da nga boole lu lu am njariñ ak lu amul njariñ léeg-léeg sax jiit matt la euh, fet la ci wala jaan matt la ci parce que kuy lu ne ngay dajal waaw naka non itam da nga mel ko xamanteni xamante ne dafa boole euh, euh, ñoo xam ne dañuy dox ak seeni tank ak ño xamne dañu wari fas mën nañoo mbeukante lu ne man na xew seen digeenti li lepp do ko wax ngir bëgg rek mu bayiko di wane lot go xamanteni lot na ci liko kilifa gogo sante muy di tarif li nga xamne moy ay maqama mu ne ko nak salima newana bu ci bari wa kanu bari wa wax aw uqila wala xàccaleef loxo ñeel ko ansaaroon ak fakkatalu nee na néew na nag nit ki nekk ku bari wax lool ba pare mucc ci njuumte wala boog mu tàbbi ci ndax dañ naan xamoon nañ ko daa bari wax ndax wax moom bu baree rek asaka dal di génn moo mu ne ko waqal la salima néewaana bu muccee mik saarun bari waa kon bu wax aw uqila wala xàccaleef loxo ñeel ko ansaarun ak fakkatalu من فلما لم يصحف بغا خامينا مانام ديمبليوت بالاقاله تي خاتيالغا موي بغا خامينا مانام كليفا غوغو نانغول ما باني تالف مقامه واي دافا انسيست رك ولا ولا افات جيغلول من جيغلول من المقاله تي تي واخجا نينا لبيت ويناكو لبيت وينا دعوته ابوتم تلبيه المطيع ووتت وي وي وي اجي اجي اجي توب wa basaltu sama joxe fii mu mutaawaatihi ci ak toppam juhdal mustatii kàttanug aji nam ma def kem kattanam waaw ba nga xamee ne maanaam moom insisté na rek na ma da ngaa da ngaa war ci laa dem ba xam ne nag amatuma pexe nag ma daal di nangu euh, <coughs> daal di wuyu ab wooteem fas yéene li nga xam def li nga xamante ni moom la ma sant te itamit def naa ci sama kem kàttan def naa ci sama kem kàttan pour pour taalif li nga xamante ni moom mooy. ma maqaama mu ne nag wa ansatu ma daal di sos ala ma ci la nga xam ne o aanihi danaa jànkonteeg moom min xarixatin ci am xel jaamidatin muy aji way muy xel moo xamante ni maa ngi toll ci maqaama waaye daal sama xel daal wax dëgg yàlla li ma gis mooy naccul na war a nàcce wa fitnatin ak sago xaamidatin suy suy aji gii giim waaw euh, fi ma toll daal nekk naa koo xamante ni daal maanaam ànduma euh, ak sama sago lool lool lool lool warawiyatin akuk setantal naadibatin suy aji ngiis eh, guy aji guy aji ngiis ñàkk gi ma ñàkk ak setantal eh, eh, tamit loolu bokk na ci li nga xamante ni maanaam doy na waar loolu ànd ak ma bëgg a tawif li nga xamante ni moom mooy ay maqaama wa humumin ak yitte naasibatin yu aji sonle yitte yi ma nekk nga xamante ni daf maa sonal loolu itam loolu wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ni bu ma ko bëggee booleeg naan damay taalif maqaama ba tey dana euh, euh, euh, doy waar waaye nee na ànd ak loolu itam mu an saxdu gële nag xam siina gi moom mooy ma mbihi ci moom moo tax mu ne wa an saxtu ma daal di sos alaamaa ca la nga xam ne waa nii danaa jànkonteeg moom min xarixatin ci min xarixatin ci <coughs> ci am xel jaamidatin muy aji way wa fitnatin ak sago xaamidatin muy aji gii suy aji giim ak setantal naadibatin naadibatin di aji ñiis waxuma min ak i itte naasibat yu aji sonle ma daal di sos xam siina juróom fukk maqaamatan ci ay maqaama taxtawi yooyu dana làq ala jiddil xawli ci dëggu wax ja wa haslihi ak li nga xamante ne moom mooy ah, ay kafam mu ne man kat damaa doon koo xamante ni eh, góorgóorlu naa ànd ak ngant yi ma ci wax yëpp fex naa ba sos juróom fukki maqaama ah, yoo xamante ni maanaam dafay làmboo wax joo xamante ni ju dëggu la léegi léeg nga gis ci maqaama bi loo xamante ni lu dëgg la vrai la histoire vrai la waaye léegi-léegi tam nga gis ci loo xamante ni safaan ba la ay kaf rek la su ko defee lii mooy li nga xamante ni moom lañ indi woon tey euh, ñu yamale ko fi ba beneen yoon in uridu ila al islah ma sarata ma tawfiqi illa billah